للمصطفى نويت ما يجدد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu di siyaar bu baax a baax mbokki jullit yépp ak mbokki taalibe yépp ak fu ñu mën a nekk di leen ndokkeel ci xew-xew bu am solo bii ñu dëgmal te muy di ci teg jumaay Masaalikul Jinaan muy ndam ci lislaam di ndam ci yoonu Serigne Touba di ndam ci Sénégal wala sax ci Afrique ci bépp doomu aadama bëgg lu baax euh, mu amoon nag ñàkkul ay kàddu yu ci jib yoo xam ni am na ñoo xam ne mel na ni euh, ci wàllug euh, nasaraan ñoo xam ne am nañ ci kàdd yoo xam ne mel ni rafetlu wuñ ko ak yi sax yuñ ci wax ñun nag ñu defoon ci benn jàngat bu gàtt rek bëggoon koo waxtaanee bu ko defee rek mën cee jariñu incha allah Euh, kon ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu ci tawféex euh, ñun suñu wàllu bopp tijjiteeg euh, jumaa ji nga xam ni bokk na ci jumaa yi gën a rëy ci Afrique gën a taaru ak ay jàngat yu ñu ci mën a def loo xam ni mën nañoo doy ab yóbbal benn bi mooy jumaa ji ak macha allah taaru bi mu taaru ak coono yi ci murit yi def nga xam ni xalifa yi fi jaar yi ku ci ne am na loo ci liggéey. yal nañ leen yàlla fayal am na lu muy lu muy représenté lu muy représenté mooy dafa mel ni am na réew moo gis ci àdduna wala askan yoo loo xam ni moom lañuy ñuy te loolu eh, da leen di jaral lu nekk nga xam ni eh, li ñu naan symbole eh, loolu lay doon nga xam ni sax liy boole réew ma ba nit ñi nekk benn nit ñi ànd bokki pas-pas di jëfandoo di jëmale réew ma kanam yooyu ci la bokk Euh, loolu da nga koy gis ci réew yu bari masalan boo jëlee France gi rek euh, dañ ciy gis ni jamono yee am na seen benn église boo xam ni mu yax Notre Dame bi mu tàkkee gis nañ ñoom niñ ci sonnee ci diir bu gàtt ñu def ci alal yu bari naka noonu boo jëlee lu mel ni Amérique World Trade Center ba mu daanoo fexe ba ñoom def leneen ak yeneen ak yeneen kon loolu day wane ni mbir yi du rek mbir alal waaye mbiri symbole da ciy am solo te loolu moo mën a tax ba askan peuple mën a àndandoo. di yëkkateendoo di tegandoo te loolu développement sax da ko mën a da ko mën a jur ndax am na ñoo xam ne masalan dañ naan alal ju toll nii eh, mën nañ koo def feneen seen xel mu gàtt jàpp ni masalan lu mel ni hôpital mën nañ ko cee def wala yeneen jàpp ni daal loolu moo ëpp njariñ loolu nag ñàkk xam yàlla suñu borom ñàkk xam ni muy doxalee ndax développement ci suñu borom moom li ci jiitu moom mooy ragal yàlla di jëfte yàlla tax bu ko defee nag barke ba mu cay def boobu mooy développement bi nga xam ni moo gën a matale développement bi tubaab yi am nga xam dafa yem rek ci àdduna duñu am alaaxira te sax ni ñu war a amee àdduna seen xel daal sax duñ ko am te loolu Serigne tubaa wane na ko ci Touba ku ne gis na ni lam ca digle woon da ca ëppoon solo ci projet yi moo ñu tabaxal ko jumaa ngir jëmmal yàlla suñu borom te pour te moo ne mënu na faa digle ay tool wala leneen donte yooyu am na solo waaye eh, ba mu ko diglee bañ ko jëfee na mu ko bëggee gis nañ ni Touba. mooy fi mu nekk ni deuxième ville du Sénégal ci wàllu développement te loolu ci jumaa ji ak jëmmal yàlla suñu borom ci lañ ko amee ndax pas-pas boobu taxawal jumaay Touba moo def ci murid yi pas-pasu tabax seen hôpital ak université ci seen alali bopp te lu mel ni Masaalikul Jinaan day tegtale ni sénégalais yi bu ñu boolee seen pas-pas ak seen doole mën nañoo taxawal lu nekk mën nañoo soqali seen réew kon ñu xam ne kon di taxawal yàlla suñu borom di ko sellal dëgg-dëgg ci la développement di jógee bi tax ñuy wax boog développement intégral kon loolu benn jàngat la euh, beneen jàngat bu ci def mooy gis nañ ni lépp lu jëm ci wàllu islaam génération bu ñëw da nga cee war a liggéey bu ko defee loolu mooy tax ba génération yi ci topp mën a jariñu te masal ku janaan ku ne xam na ni projet bi yàgg na ci ñu xalifa yi yàlla nañ la yàlla fayal ku nekk ñëw nga def ca la nga mën bàyyee ko sa morom mu wéy kon liñ naan continuité de l' ci islaam la gën a am muy continuité de l'islam sax laa ko tuddee kon loolu ñu war a bàyyi xel la kon mu mel ni ni ko suñu mag ñu baax ni liggéey ba bàyyi ñu fi ba mu agsi fii eh, li ko dalee ci xalifa yu tedd yi sëñ man Moussa sëñ Fallou sëñ Saliou sëñ eh, Alaaji Baara yal nañu yàlla fayal sëñ Sidi Moxtaar ku ne gis na jëf yi ñu ci jëf ak coono yi ñu ci dañ ndeysaan te yàlla sax def na fekkewu ko kon moom kon loolu day wane ni ñoom li ñuy jëf islaam ak yàllaa tax dëgg-dëgg sax jëf ci yàlla balaa moo mat nga jëf ko bàyyee ko ñeneen yi ba yow sax ñàkkul doo ko jariñu kon loolu jàngat la ci ñun ñi ñu xam ne kat kon li def saa su ne ñu dañuy war a taxawal loo xam ne bu suñuy doom suñuy sët ñooy fekk fi dara kon soññu la ci ñun bu rutu jamono yi ñu li ñu jëf ba loo xam ne bu suñuy sët yi donte sax ñu ko fekkee ñoom mën ci jariñu jàngat bi mujj nag mooy damaa jàpp ne euh, ñii di nga teg di wax naka sudul noonu tontu bi gën a matale mooy jëf mooy jëf yi nga xam ne day fees ndax kon ne xam na ni yoonu murit te mooy lislaam rek ñu ko yàgg xeex bari na ndax yonent sallallahu alayhi wasallam ba ñu ko daan xeex ba tey ñu ngi koy xeex ci forme yu wuute waaye teewul islam bi gën a jëm kanam di tasaaroo naka noonu it yoonu murit ba mu juddoo ba tey naam bàmba ji ba muy door dañu woon di sori la mag ñu waxoon ginnaaw gi Paul Martinet eh, secte la boo xam ne day seey 1912 àdduna loolu jamono weddi ko ku mel ni si ñëw ne ko ki bindulee Marabout la Rachid ne lii kat bu ñu demee ba ci kanam dina daanu ndax jàpp am na fu mu ko teg waaye àdduna weddi ko am ñu jàppoon tamit fi doom Sëñ Tuubaa yi jógee yoon wi day day suux ci gàttal daal ñu xeex yi bari na ba ñi nga xam ñu ngi woowee seen bopp salaf salafit di wax wax yu ñaaw di di jéem a diingat ak sax ñoo xam ne wàllu république lañ gëm ndax gis nañ fi jamono ay ñu génn génnoon di wax ci eh, yoonu euh, tariixa yeeg yu mel noonu waaye damaa jàpp ne yooyu yëpp tontu bi gën a wér mooy jëf. donte sax du ñàkk ñenn ci ñun ñoo xam ne am nañ xam-xam boo xam ne daal mën a tontu ci xel ci waaye tontu bi gën a matale ci ay. yow di nga tasawuf ñi di nga sëñ Tuubaa ñi di nga tariixa di ko teg ci ay xalaat yoo xam ne tegewul fenn loolu tontu bi gën a wér mooy di jëf-jëf yoo xam ne dañ koy dañ ciy teg seen ba duñ ci mën dara donte nag du ñàkk ci ñun ñenn ñoo xam ne dañuy tontu ñooñu waaye ñooñu ñu doon ñenn rek waaye ëpp ci suñu doole daal nañ ko def ci ji jëf li Cheikh Ibra doon wax naan maa ngi xaar ba ëllëg suñu borom euh, fay wax bàyyi jëf maanaam kuy wax ba kuy jëf ba raw la mënoo wax ba dab ko murid yi leen jig mooy jëf kon coow yu bari yeeg vidéo yeeg di tontonte saa su ne di transférer di partage ay ay audio ay dingat loolu jaru ko ñun nañu nañu concentré ci li nga xam moom lañ Sëñ Tuubaa sant muy sellal nekk ci lu baax góorgóorlu suñu ngam la kàttan di liggéeyal Sëñ Tuubaa di jëmmal li mu bëgg loolu daal jàpp naa ni euh, Masaalikul naan man jàngat naa ci yu mel noonu ma ne woon naa ci waxtaan ak mbokk taalibe yi ñaan suñu borom mu doon loo xam ne dañ koy jariñoo te ñun ñu ànd am ngërëmal yàlla suñu borom am ngërëmal Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu siwa islami la yuhmadu عند الإله وبه نجلد